voilà mbokku internet leeral média leeral TV leeral point net tey ñu ngi fii nga xamante ne bi rek moom moo di cité kër góor gi cité kër góor gi nag bu ngeen ko déggee xel day dem ci Ousmane Sonko leader bu Pastef euh, tey muy le 22 mai 2023 suba di mardi 23 mai 2023 kon bu ngeen fàttalikoo date boobu aussi moom mooy date bi nga xamante ne moom la ñu jàpp. muy procès bi nga xamante ni bi rek war nañ koo amal digganteem moom ak Adji Sarr mi ko tuumaal ne daf ko violé daf ko yakkataan muy procès nag bu jéggi dayo boo xamante ne bi war nañ ko mën a am te bu ngeen sukkandikoo ci ay xeeb information Euh, mardi bi passé dañoo amoon amaloon boobu le procès daal di koy dàq ba tey ji ngir amal lu ñuy wax euh, audience spéciale maanaam Ousmane Sonko ak donc la ñuy déglu bu ko defee rek ñu am lu leer ci li nga xamante ne bi rek moo soxal mbirum viol boobu ñu ko tuumal moom Ousmane Sonko. loolu nag moo tax suñu déplacement ñu ñëw fii nga xamante ne bi rek moom moo di cité kër góor gi nekk cité boo xamante ne bi dafay doon victime ci échauffourée yu tar yoo xamante ne bi day am à fois ñu woo Ousmane Sonko procès muy moom ak Adji moom ak keneen ak keneen donc loolu moo tax tey ñu ñëw fii ngir taataan kàddu askan wi askan wi nag yéy nañu yàbbi ci li nga xamante ni bi rek moom moo de seeni i jafe-jafe saa yu bile audience amee wala soit ñu woo Ousmane Sonko au tribunal de Dakar askan wi nag ñu bëri si ñoom nanguwuñu wax ci suñu caméra wante hors antenne nee nañu kat ñoom dinañu tëj seen i boutique wala seen bërëbu jaayukaay seen bërëbu liggéeyukaay ndaxte ay victime lañ ciy doon dañuy ñëw di yàqate seen i njaay loolu nag moo tax ñoom ñu bëgg a tëj place ba audience bi jàll bu ko defee ñu ñëwaat ci seen activité waaw salaamaaleykum di siyaar di bëggee di delloo Sénégal yëpp seen wàccuwaay quoi waaw loolu noot laaj nga question bu bu doy waar quoi parce que tamit xam nga rek Ousmane Sonko aju Sarr chaque jour gaa ngi gaa ngi gaa ngi bu ñu ko woowee rek Sénégal bi gën a waaw nit ñi dootuñu amati jàmm quoi waaw affaire de violence beeg jàppal bàyyi xeex beeg loolu yëpp mun na ñàkk quoi en tant que tant que sénégalais parce que sénégalais jàmm fi xaj quoi. di ñaan suñu borom rek mu def si jàmm waaw ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo jiite tamit xam nga rek ñu bàyyi mu sedd quoi bàyyi affaire yi sedd parce que tamit Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar parce que toll nañ fi nga xamante ne réew bi métti na trop nag métti na trop waaw. fii kenn ku ne yaa ngi dund li nga xamante ne instant noo toog tamit si média wala si télé bi di wax mais tamit am na loo xamante ne bu wax jotee dañu war a wax ñi nga xamante ne tey jii ñoo nekk si nguur gi nañu gëstu askan bi Sénégal neex naa yor faal nañ bu baax. xoolal lu xew barki démb Ziguinchor ay doomu sénégalais di reyante suñu biir ba ñu rey si benn tax der jouru mardi bi projet Adji Sarr Ousmane Sonko ba gendarme gendarmerie police di reyante seen biir lu musul am Sénégal la kon tey jii tey jii may ñaan tey jii suñu kilifa diine yi ñu jóg wax ki ñu war a waxal mooy njiit muy kilifa réew bi muy Macky Sall ñu moom lañ jox suñu carte eh, man mii di wax ak moom laa voté ba 2000 mil bii passé rek moom laa jox jox élection moom laay jàppale mais am na fu nga xamante ne toll na ci nga xamante ne bu dëgg ñee dañ ko war a wax suñu président suñu président la affaire bi du ay xeex du ay xuloo carte électeur ba la carte gi la soxla kenn ku si ne am nga sa am kenn ku si ne am nga sa say nit jarul xeex jarul xulo ñu jéem a def xam rek ñaan yàlla Sénégal am jàmm ko quoi ba jour élection yi que meilleur gagne ñu Macky Sall la ñuy jàppale ak guddi bëccëg moom la ñuy jàppale ci ci côté bu ne mais am na loo xamante ne tey jii ñaan naa yàlla suñu borom xam rek jàmm am si dëkk bi quoi. jàmm ji lépp rek ku ko war a woote mooy mag yi parce que toll nañ fi nga xamante ne li may wax sama gars yi amul xeex amul xulóor daas fanaanal la kenn ku si nekk yaa ngi sa carte électeur bi waaw kenn ku si nekk yaa ngi sa carte électeur bi sampal sa mu dem nga jàppale ko quoi li yàlla bu ko yàlla maye victoire ñu bëggee ko feete ko quoi. waaw loolu Cité Keur gi ak yeneen endroit yëpp la a chaque fois li ñu gis mooy ni que Ousmane Sonko buñ ko woowee tribunal économie dëkk bi yëpp ay taxaw comme Cité Gorgui ñun ñii ñoo ngi dëkk ba Nord Foire mais loolu bu amee suñu doom yi sax duñ mën a jàngi da ngay bëgg a dem fenn doo mën a dem fenn gaare sa oto te loolu yaakaar naa lu mën a ñàkk la parce que Ousmane Sonko dafa nekk opposan politique comme bépp opposant donc bu amee war a dem tribunal dañ ko war a mettre dans les conditions yoo xam ne dafa war a dem ñëw bu fekkonte ne buy dem tribunal liñ si arsenal biñ ci teg yëpp amu ci li yëpp du ci am parce que diggante woote nga jóge sa kër dem ak quelque soit noo mën a aw ko la mën a topp loolu yëpp pour man warta am problème donc loolu nguur gi fi nekk en place ñoom ñoo war a def les mesures nécessaires pour que loolu yëpp du fi am buñ ko toppalee bàyyi ko rek ak tee tee euh, tee yaayu bakkanam dina dem ñëw si jàmm te benn problème du am. Euh, li fi amoon dina fi amaat loolu yëpp day dépendre si jeunes yi parce que jeunes yi benn instant da gis ne que dañoo am détermination bi nga xam ne yaakaar naa boo wàccee woon police u àdduna bi yëpp sax du leen tere def li ñu war a def. donc li may wax toujours rek mooy ne que bañ a def euh, ay moyens de force yu bëri bàyyi ko rek mu def li mu war a def policier yi ñu wàññi ko sa sert à rien parce que soo xoolee dëkk bi am na insécurité suñu doom yaa ngi génn ñu leen di jàpp suñu doom yaa ngi réer ñu xam fu ñu ne ay nit ñu ngi leen di rey si mbedd bi policier yooyu buñ ko defoon foofu ñu am sécurité moo ñu gënal ñuy baare mbedd bi yëpp di déranger parce que man lii finalement dafay déranger sax citoyen lu mën a ñàkk daal. élection yi dafa leer parce que dëgg dëgg la sa ganaar dëgg ay caaxaan la parce que toll nañ fi nga xamante ne instant bii nii lu Ousmane Sonko am boo ko teree bokk ci élection yi rek yé xam maanaam Sénégal tax na quoi man li ma koy conseil en tant que président na bàyyi ñëpp quoi ku war bokk na bokk quoi parce que bëri xam nga rek reenu reenu ñàmbi la quoi kenn xamul fa lay fan lay dammee quoi na bàyyi ñëpp jàmm am si réew mi ba jour élection kenn ku si ne sa carte électeur nga yor jarul xeex jarul taal jarul xuloo isaan yow dégg baax sama gars yi amul xeex amul xuloo bu kenn dem si océan di yàq bu kenn dem yàq alalu nit ñi na gars yi daas fanaane seen carte seen électeurs yi parce que loolu mooy moo moo moo jaar yoon quoi man du ma koy conseil bu mu bàyyi kenn maanaam bu mu tere kenn quoi na ñëpp waaw ki war dem na bokk quoi ñu dugg si bismillah génn si alhamdulilah rabbil alamin quoi wasalaam. mu nga kon mbokk yi internet ak téléspectateur ak auditeur u leeral média mu mel ni rek askan wi dégg ngeen seen i kàddu ñoom ñëpp nag ñoo bokk. benn way boo xamante ne bi rek ñu ngi koy way jamono ji mën na ñëpp ànd daal dal bu ko defee échauffourée muy jàmmaarloo du fi amati ci bile zone nga xamante ne bi dafay faral di nekk victime ci jamono ji nga xamante ne bi Ousmane Sonko woo nañ ko ci tribunal bu Dakar